kañ la leen ma baay ku ko am dootu dootaani zamzam la zamzam la ku ko am jërë ngeen jëf yéen mbokk yi ñuy bàyyi xel uh, ci uh, Equivox uh, TV tey di juróom ñetti fan ci weeru novembre atum 2021 di date bu am solo ci ñi nga xamante ne ñoo askanewoo ci Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ndax bisu tey bi ci 1900 ci la gane woon àddina tey nag ñuy euh, fàttaliku juddoom donte nag xam nañu ni mu ngi làqu euh, ci Zaire moom Maolana Cheikh l'Islam ci atum 1975 tey nag ñu dajale fi ay njabootam ay taalibeem ak i soppeem ñu fas yéene nag euh, ci bis bi jëmmal ko ci ñëwaat ci jëmm jooje nga xamante ni wax naa léegi ni mu ngi judd ci atum 1900 Cheikhul Islam def lu ne ci àddina jaarale ko nag ci li nga xam te ne loolu la gëmoon eh, ci dundam yépp mu feeñal ko di diina islaam eh, tarixa tijaan waaye woote woo ci atum 1929 li nga xam te ne mooy fayda tijaniya nga xam te ne bunt bu ubbu bu mag la bu ubbeeku ci diina ji loolu yépp incha allah dinañ ci ñëw moom bàyyi juddam bàyyi tarixa tijaan bàyyi diggantam ak yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye bàyyi ak alxuraan bi mu waxoon ni Euh, ñaan na yàlla def karaamam di alxuraan loolu nag am na ñu wax ni yàlla nangul na ko ci dundam ba ci sax lu mu fekkewul te loolu yëpp incha allah dinañ ñëw ànd ak suñuy gan yu ñu fas yéene àndal euh, ci euh, bisu tay bi ngir jëmmal ko màggal ko ndax fu ne ci àddina ñu ngi koy ñu ngi koy màggal xëy na Sénégal nag ñoo ci gindeegul li bàyyi waxoon rek bi ko waaja laaja lu waral nga am dayo bi ci àddina te fa nga bàyyee ko xamuñu la nu misaala ko eh, ni eh, ki nga xamante ne dafay dafay dafay lekk ñi sant Mbaye ak eh, Touré ñoo koy gën a xam danq mu boo dànkee li nekk sa biir moom wóor na la tibb la bu du rëcc waaye li ko wër da koy mar loolu di misaal bu am solo xëy na kilifa yi fi toog ñoom dinañ ci ñëw ci bàyyi lu waral ba léegi mu yéex ci Sénégal ñu gën a xam dayoom gën ko ràññee ngir gën ko topp waral ba ci jotaay bi dinañ ànd ak. ñoo xamante ne ci wàllu zikrullah ci la ñuy gën a taxaw ndax xam ngeen ni bàyyi ko ko wax wax tudd yàlla ndax am na euh, lu bëri lu ci wax am ci nag ay air yu uute ci bi muy woote fayda ba ni mu wuy jee boromam loolu yëpp incha allah nañ ci ànd ak isaaxa bari ñu xam ko di tuddkat yu yàlla ci pays bi euh, doon koo xam te ne na ay clip yu bëri jagleel ko Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima bi ci mujj xam ngeen ko laata ñoo dem ci gàmmu ren gi. Euh, ñëw na ci ci ay bayt yoo xamante ne bàyyeekoo na euh, ci Maolana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass nañ ci ànd ak moom incha allah euh, ci zikrullah bi mu ngi teew nag àndak ak kenn ci mbokkam fas yéene ko jàppale ci aw bi ba ci ñun sax incha allah dinañ bokk ci ñi ñi ñi aw di Boubacar Sissokho moom it mu ngi ci jataa bi incha allah dinañ ci ñëw ndax ñoom ñoo ubbi laataa ñoo ñëw ci waxtaan bi gën a xam lekk ñu ñuy bàyyi xel. jëmm ji ñu fi dajale tey di Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass kii fas yéene ñëw ci waxtaan beegee ci aju donte nag Issa Xabari wax naa ko léegi dina ci ñëw ndax jotaay bi noonu lay tëddee sikkar lay doon ak waxtaan kilifa gi di Cheikh Mouhamed jakite ngeen euh, tàmbali ko miin ci Equivox euh, TV borom euh, buy buy buy buy tàmbali jotaayam boobu nga xam te ne moo jëm ci gindeeku nga dégg mu naan Equivox TV la chaîne qui lève les équivoques dëgg la moo tax tey nag chaîne boobu dina lever ay équivoque yu bëri euh, ci bàyyi na ko ñenn ñiy déggee te xamuñu ko ak bàyyi dëggantaan la mu doon la mu woote woo ak it ay toppem euh, di ko wéyal euh, jamono ji te ñu war ci tudd xalif bi di Serigne Mahi Ibrahima ñas ñu koy ñaana yàlla gudd fan bu ànd ak wér di ko gërëm gis ni it teg na tànkam foo xamante ni lépp rek dafa jëm ci ginnaaw ba ñu sàkkoo xam-xam di ay taalibe ñu fexe ba mën a seen bopp buñ ko waxee xëy na dem ci toolu baay yi nga xam te ne jamono ji mu ngi ko initier ak yeneen ci ay projet na euh, ci euh, keppaaram la loolu juddoo ñu koy ñaana yàlla gudd fan bu ànd ak wér moom Serigne Mahi Ibrahima Niass nga xam te ne mooy xalif général Medina Baye naka noonu Cheikh Tidiane Cissé mi nga xam te ne jamono ji ku wax Medina Baye xel yi dem ci moom naka noonu it porte parole bi di rakkam di Serigne Mahi Cissé ak mboolem njabootu Baye moo xam ci sët yeeg Euh, ba ci ñi nga xam te ne ñooy doom yi ak it euh, taalibe yi euh, kon nag li ñuy def mooy ñu ànd ak sunu kilifa yi ñu ubbi jotaay bi ak zikrullah laata ñu ñëw ci cheikh Mouhamed Diakité ngir waxtaane jëmm jooju di Maulana cheikh islam El Hadj Ibrahima kilifa gi ñu ngi lay nuyu am mbégte vraiment ànd ak yow ci jotaay bi ak sëñ Babacar Sissakho ñu bàyyi la nga ubbeek ñun jotaay bi.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 لا إله إلا الله امرأة إلهي طال ليالي بالبدول الفضل رقاية أيدنا أم كلثوم زينب بلاد ثمة الرجال ذوي الإكمال ولا إجلال عليك من كل قلب سلام وقلق إليه طول الليالي أفرد بفضل زينب الناس ما أيدنا زينب زوجة فكل عبد رشده فهواه ما لم منه أن سبلئه للكمال Cheikh euh, Isaaxa euh, Bari ci tagg yu am solo yooyu nga xamante ne euh, tagg na ko léegi bàyyeekoo ci mbindum ki nga xamante ne mooy Cheikhul Islam El Hadj mi ñuy waxtaane tey may ne mooy juddoom tey 8 novembre 2021 ñuy fàttaliku bi mu juddoo ci atum 1900 ah génn àddina 1975 ci li taarix wax ñu ngi lay gërëm di la sant Cheikh Isaaxa Bari ànd ak Boubacar Cissokho mi nga xam ne macha allah moo ko doon aw waaye man desuma ginnaaw yéen a ngi doon dégg ni maa ngi doon <laughs> maa ngi doon aw donte sama baat bi waaw taxaw koo demee noonu daal maak Habib ñoo bokk timbre voix waaye ñu ngi góorgóorlu xam naa nag dinañ dinañ ci dinañ ci gën a bàyyi xel incha allah en tout cas gërëm nañ leen sant nañ leen dinañ ñëw ci kanam incha allah ubbi yeneen bayit ndax wax nañ ni tey ne ki ñuy fàttali ko juddoom am na ay air yu mu daan yëkkatee li nga xam te ne moo jëm ci zikkar yi ci ay air yu uute lépp rek ci tagg euh, ki nga xamante ne mooy suñu borom tudd yàlla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 wa ridwanul ilahi l atam an saaxibi alxatmiyati walkatmiyati abil abbaas tijaan alxaail taati lfaydata ala ashaabi wannaasu fi gaayati ma yakunuuna alayhi min addiqi washidda wa taati haadihi lfaydatu xataa yadxula annaasa fi tariqatina afwaajan afwaajan afwaaja wa ridwanul ilahi l acdam al atam al akmal an saaxibi lfaydati tijaani alcheikh ibrahim ñas alqaail mislah في مثل هذا اليوم هنيئا لإبراهيم لاها هلاله هلال بضال الناظرين جماله هلال الربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله إذا أيها المشاهدون الكرام حيثما كنتم نحييكم بأفضل تحية تحية طيبة مباركة التي لا تأسيم فيها ولا لغو ولذلك أقول لكم سلام عليكم حالة القرب والبعد سلام به تحيا قلوب سلام به تزداد القلوب رابطة الود ألا وهي بالاختصار سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Seydi Pape Ousmane Cissé ñu lay nuyu bu baax a baax di la gërëm ci invitation bi di gërëm zikarkat yi nga xamante ne comme ni nga ko waxee rek sànq ba léegi ñu ngi concentré wu ci li ñuy wàccee fii ci leer mhm. ndax euh, yàlla dafa wax ci alquran euh, wa iza qaraata alqurana fastamiu yaa ngi dégg bu ñuy jàng quran rek na ngeen bàyyi xel seen lépp mhm. yaa ngi dégg te zikar euh, alquran du leen dudul laa ilaha illa allah muhammad rasulullah leen lu ñëw ci lool rek loolu rek lay firi mhm. te tudd na fi ay zikar yi nga xamante ne daanaka moo nekkoon dund Cheikh Ibrahim mhm. te Cheikh Ibrahim waxoon na ne euh, bindam yii nii mooy samratu awqaatu xayaati wa huwa xarsi uman jiyaati wa taqbalu amdaahi wa taqbalu man yaxki mhm. nee na tudd yàlla yu muy tudd mooy meññeetu dundam te mu ngi ñaanal képp koo xamante ne mu ngi koy jàng rek yàlla na ko yàlla defal xéewal ak képp koo xamante ne daanaka teewee na fu ñu koy jàngee donc ci gàttal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen delloo kàddu ñu ngi lay fay kilifa gi dañuy des ak yow ndax bëgg nañu euh, ki ñuy waxtaane tey di Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ni ma ko waxee juddu ci 1900 ginnaaw gi la mu def yëpp mu def ko ba tey ñu toog di ko waxtaane soo ñuy wax Mawlana Cheikh al kan la loo ñuy wax waaw dana doon euh, question bu yomba tontu waaye dana jafe. Mm. ndax bu fekkee ñun dañuy wax ci Cheikh Ibrahim mënuñu wax lu dul ñu nettali ndax fekkee wuñ jamonoom. Mm-hmm. waaye bu fekkee ne al arab dafay wax ne euh, man qaala ma qiila lahu fa maa ata boo waxee loo xamante ne dañ la ko wax loo rek maanaam yow amoo benn ngaañ amoo benn bakkaar mm-hmm. donc incha allahu yàlla nañu yàlla dimbali ba lépp lu ñuy wax rek mu méngoog li nga xamante ne moom lañ yaxal ci téere yi ak mu méngoog li nga xamante ne moom la sëriñ yi euh, nettali ci dundu Cheikh Ibrahim mm-hmm. waaye tamit laata ñuy ñëw ci loolu ñu ngi ndokkeelaat euh, suñu bopp ci bés bii nga xamante ne daanaka ñu bëri dañ koy xaw a sàggane te bés bu màgg la ci ummatul muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ndax bés nit ki tey comme ni nga ko waxee sànq ci sa ubbeeku ci lañ marqué juddu Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu waaye ci weeru tubaab mhm. xam nga Baye Niass dafa am lu ko yàlla may mhm. baay dafa jël yonent bi mu def ko léppam fa kulliya mashghulun bi kulli muhammadin fa lam attaxid hillan siwaahu wa maaniltuhu mu ne man sama lépp rek dafa yittewoo lépp yonent bi mhm. moo tax ba ci juddu yonent bi Baye du Baye dara yonent bi Baye da gis bu weeru yonent bi teroo daf koy tàmbalee ci burdu te boo xoolee particularité médina Baye mhm. mooy ñoom seen burdu amul noppalu dañuy burdu enchaîné dem ci gàmm gi duñ yem foofu ñu ñëwaat ci gàmmuwaat màggal yonent bi waaye duñ yem foofu ñu ñëwaat ci weeru tubaab moom la ñuy wax euh, année grégorienne mhm. ñu màggalee ci yonent bi sallallahu waaw gàmmu jëppal looloo ko sabab ba tax sax xasaanu euh, tariq ñu koy wax biddi udd siidina nga xamante ne taxniyatu rab yi moo ko bind mm-hmm. mu ngi wax naan akrim bi chahril ajami ibrila chahril karami mm-hmm. akrim bi ardal xarami mawlidu xayrul mursali mm-hmm. na nga màggal yenent bi waaye ci ban weer ci weer ñi nga xamante ne ay ajab lañu ajab mooy képp koo xamante ne làkkul a ibrila chahral karami avril ci weeru yonent yàlla bi nga xamante ne mooy aji tedd akrim bi ardal xarami na nga màggal maanaam dëkkam bi nga xamante ne foofu la cosaanoo mooy makkatal mukarrama mawlidu xayrul mursali te judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. donc da gis ne ci lef boobu rek lañu dugg ba tax ñu mën a toog fii tey di wax ci juddu Cheikh Ibrahim ma ñëw ci sa question hmm. Cheikh Ibrahim mu ngi juddoo ci diggante bayna walidayni abarayni ci diggante ne ci diggante ñaari wayjur yu baax yu tedd yu sell ji ko waaye juddoo moom wax na ci nachatu taahiran maa qultu faxran bal nataqtu shaakira nachatu man cheikh ibrahim juddu naa taahiran nekk di aji sell waaye maa qultu faxran li may wax ni waxuma ko ngir puukare waaye bal nataqtu shaakira dama ko wax rek lu dul ngir sant yàlla yaa ngi dégg comme ni ma ko waxee donc judd na ci diggante ñaari jur yu màgg muy xaaj abdullahi ñas radiallahu taala anhu yaa ngi dégg ak yaayam bu tedd bi ñu koy wax saydatuna aïsatu janka radiallahu taala anha muy ñaari wayjur yi nga xamante ne képp koo xamante ne yàlla dimbali na maanaam nga sokkeekoo ci ñoom rek maanaam baax du la jafe mm-hmm. ndax arab dafay wax ne tuarafu azamatu abnaa bi azanati ajdaadihim maanaam teddaange doom ñu ngi koy xamee ci teddaange maanaam ñaari wayjur yi nga xamante ne ñoo leen jur mm. donc ni ma ko waxee Cheikh Ibrahim mu ngi judd ci diggante ñaari way ñaari way juróom yu tedd yooyu waaye ci ban dëkk Cheikh Ibrahim mu ngi juddu dëkk bu ñuy wax Tayba Ñaseeni yaa ngi dégg moom la waykat bi naan aja fi qalbi kulla shajwin dafini mawlidi cheikhi inda Tayba Ñaseeni kooku cheikhaani moom moo ko wax te suñu mbokk si dañ koy faral di yëkkati waaw dañ waaye période bi ñu koy gën a mooy mm. période rajab bi mm. waaye rajab bi boo ko correspondre comme ni ma la wax rek mooy ñëw ci tey bés bi mm-hmm. donc tey bañ a seen la Cheikh Ibrahim juddu ci ban année mu ngi juddu ci 1318 ci atum milaadi mooy atum juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye boo demee ci Kashful Albas 1320 nga fay fekk mm-hmm. waaye Cheikh Ibrahim dafa ne Seyda Aliou Cissé xam naa ne li nga bind nii ci ñu wér nga ko jëlee waaye beneen yoon booy toxalati na nga wax ne man maa ngi judd 1318 donc 1318 ci weeru rajab le 15 rajab 1318 à 5 heures maanaam ci takkusaan ci bésub alxames ci la Cheikh Ibrahima Niass juddu radiallahu taala anhu loolu mooy correspondre le 8 novembre 1900 mhm. yaa ngi dégg loolu Cheikh Ibrahim nag euh, mbiram daanaka wàllu yàlla yu bëri junj nañ ko mm-hmm. juddoom daanaka ci la àdduna bi leeree beneen leeraat mm-hmm. yaa ngi dégg ndax wàllu yàlla saa yu ko yàlla di indi si jamono rek dafay fekk réer bëri lënt lënt bëri moo tax yàlla di ko indi ngir mu beesalaat li nga xamante ne daanaka nit ñi dañ ko doon sàgganee mm-hmm. donc turu beesal foo ko déggee rek al mujaddid dafay ñëw sa xel te yonent bi dafa wax ne inna allaha yabaasu ala rasi kulle miati sana man yujaddadu li haadihi l am amri diiniha yàlla dana génnee ci xeet bi bépp téeméeri at maanaam bépp chaque chaque chaque siècle yàlla dana indi ci xeet bi ki nga xamante ne li yonent bi indoon te nit ñi desee woon ko dégg wala li nga xamante ne ay jikko yonent bi la wala ay jëfu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xamante nit ñi dañ ko xawoon sàggane mm. chaque téeméeri at yàlla dafay indi man yu jaddid haadihi l ummata amra diiniha koo xamante ne dafay beesal loolu ci xolu jaamu yàlla yi ci loolu nag la Cheikh Ibrahim comme ni ma ko waxee juddoo Tayba Ñaseen mm-hmm. bokk ci askan bi nga xamante ne askan bu ñuy puukare wala ndax bul fàtte ne Cheikh Ibrahim booy xool ci côté wayjuram ñaari tànk lay doxee mhm. benn tànk bi tànk nguur la waaye benn tànk bi sotu yonent bi la sallallahu alayhi wa ndax dangay dégg suñu mag bu baax bu ñuy wax cheikh euh, Moustapha Guèye mhm. yal na yàlla yoo ko gudd fan mu ngi wax ne cheikh Ibrahim bu ñuy xool askanam ci fànnu maanaam bi nga xamante ne nguur la fànn boobu buñ doon topp santam ba léegi cheikh Ibrahim Ndiaye ngay wax yaa ngi dégg cheikh Ibrahim Ndiaye waaye bu ñuy topp ci fànn bi nga xamante ne fànn shérif la foofu Cheikh Ibrahim Haydara ngay wax waaye loolu li tax maanaam yàlla def ba mu sant ñas loolu dafa am cosaan ndax nit ki booy wax ci taarixam nga bëgg maanaam nit ñi xam ko faaw nga wax fan la juddoo faaw nga wax maanaam fan la cosaanoo faaw nga wax ana ñan ñooy baayam waaye tamit faaw nga wax ana ñan ñoo ko jàngal ba tax mu mun a àgg fi mu àgg ci dayoo ci xam-xam ak ci ngëneel Mhm. donc comme ni ma la koy waxee Cheikh Ibrahim booy ñëw ci cosaanam da ngay gis ne waajuram bu góor mu ngi tudd Haaj Abdoulaye ñas kooku kan moo ko jur ki ko jur mu ngi tudd Mouhamad Ngajje Ngajje nag surnoo la ci olof mhm. waaye Mouhamad ñas la tudd Mouhamad boobu kan moo ko jur Mademba moo ko jur Mademba boobu kan moo ko jur Bakari moo ko jur Bakari boobu kan moo ko jur Mouhamad Lamine moo ko jur Mouhamad Lamine kan moo ko jur sàmba Corofaal moo ko jur Mhm. Samba Coro kan moo ko jur sàmba Jeyla Ñas ñu koy wooyee Samba Rida mhm. Samba Rida ku ko jur Rida mooy baayam donc da gis ne Cheikh Ibrahim Rida mooy maamam bi nga xamante ne mooy maamu naaram bi nga xamante ne moo mélangé woo ak sénégalais yi ba tax mhm. Cheikh Ibrahim ñëw tey mu a bokk ci nit ñu ñuul ñi te Rida booy ñëw ci cosaanam dañuy wax ne mu ngi dëkkoon Libi Libi ci dëkk bu ñuy tuddee Jabarul Ahdar moom foofu la cosaanoo waaye moom yàlla da ko mayoon alal mayoon ko xam-xam bu day dafa doon def maanaam li ñuy tuddee ay raxalaat ay voyage mm. bu tukkee ñëw ci benn dëkk yaa ngi dégg mu beesaleel leen seen diine mm-hmm. wala mu tuubal leen ci islaam ba pare jox leen alal continuer mu ñëw ba tukki yooyu nag ñoo ko indi ba mu ñëw ci booru jolof bi waaye ba mu ñëwee ci booru jolof bi mu indaale alalam indaale xam-xamam mm. waaye comme li ma la wax yéene mooy dugal nit ñi ci islaam mais nag yàlla dafa def jamono jooju dafa fekkoon fii ay buur yi nga xamante ne ay ceddo lañ mm. te buur yooyu buñ gisee ki nga xamante ne borom alal la borom xam-xam la dañ koy ragal mm-hmm. waaye gannaaw moom yàlla may na ko kashfu mu xam ne ñii mm. boo moytul danañ dal ci kawam te ñii alal rek lañ bëgg mu jël alal yëpp dénk leen ko <laughs> te dañuy wax ne képp ku la bëgg sàcc rek boo ko dénkee daanaka mucc nga ngi dégg mu jël alalam mu dénk leen ko waaye olof dafay wax ne képp ku la teral rek moom moo la tëral mhm. looloo waral ñoom ba ñu gisee ni kii jiitu nañu ci mbaax ñun tamit pour jël ci alam pour pour jël ci alalam waaye ci anam bu lew nañ ko may soxna rek mhm. waaye ñoom ñu gis ne kan lañ ko war a may xale yëpp fii daanaka sëy nañ ñu ne kenn rek moo fi des de mooy Jayle Njaay mhm. Jayle Njaay la tudd Jayle bañ ko koy may presque duggoon na ci cinquantaine bi maanaam mhm. dañ ko ko may ngir jël alalam waa yaakaaruñu woon ne yàlla dana ci génnee njaboot waaye yàlla moo xam lu muy def mhm. yàlla buy génnee jaamam bi nga xamante ne dafay génnee kéemtaan faw jaaruwaayam tamit kéemtaan def ci xew mhm. donc dangay gis ne euh, rida boobu noonu bañ ko mee Jayle Njaay euh, yàlla def yàlla sos ci doom bu tudd Samba Rida waaye Samba Rida turam dëgg mooy Muhammad waaye juddoom papa ji fekkewu ko waaye laata moo juddu papam mooy rida bi nga xamante ne mooy shérif di bokk ci askano yonente bi sala askano yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa ne jay la ñas yaa ngi ëmb sama doom waaye nag comme li may wax ne wàllu yàlla la yàlla xamal na ko ne kii góor lay doon mm-hmm. ne ko bu juddoo doon góor tuddee ko Muhammad yaa ngi dégg loolu na ko jox tamit téere alquran bi te nee ko mu sori nguuru maamam yi nguuru baayam yi daal mhm. na ko sori te na xam ne mboole mi ngëneeli alquran mboole mi ngëneeli àdduna ak alaxira mhm. yàlla def na ko ci téere bi ci loolu ngay gis maanaam famille Cheikh Ibrahim ni ñu takkawee ak alquran mhm. cosaan bi foofu la waaye comme li mu lay wax ne cosaanu Cheikh Ibrahim ci benn wàll maanaam njaay la doon njaay la naroon nekk li tax ñu sant ñas loolu taarix bii moo ko indi jay la njaay dafa amoon bës mu amoon fas fas boobu mu war ko fas bi jékki-jékki maam mu dugg ci àll bi ba pare dugg ci ay ay dëkk dëkk yooyu ñaas kanam bi ñaas yu méttee métti hmm. léegi ñaas yooyu nag ñu koy faj mu taw wér faj ko lu yàgg faj ko lu yàgg ba yàlla def wér na waaye cicatrices yi des ci yàlla def nag maanaam euh, cicatrices yooyu dem ba jur ay dàkkantal ci moom ñu naan ko hmm. jayle mi si ñaas yi maanaam hmm. jayle borom ñaas yi waaye looloo dem ba ñu yàq sant bi ñu ne ko jayle ñas donc santab ñas ci jayla la njëkkee jayle moo sant ñas après sant boobu moo ñëw rogalaat ci Cheikh Ibrahim Niass mm-hmm. donc indil naa la cosaanu Cheikh Ibrahim ci mm-hmm. askanam mm-hmm. waaye ñu ñëw tamit ci jàngam yaa ngi dégg ndax Cheikh Ibrahim ñas dafa am lu yéeme li nga xamante ne daanaka musuñ koo gis ci jamono ku ko am mooy Cheikh Ibrahim yàlla da ko may mu wax wax boo xamante ne képp ku ko wax nit ñi dinañ xool foo jàngee dafa ne indi cheikhaani cheikhi fi zahiri alkitaabu wal sunnati wala yujadu fi l ardi man huwa aalamu minni bihima mm-hmm. wa cheikhi fi zahiri huwa cheikhu tijaani wa huwa laa yufaariquni lahzatan mu ne man ñaari sëriñ laa am sama benn sëriñ bi mooy alquran ak sunna mm-hmm. waaye da ngay dégg bi ci cheikh Ibrahim teg wala yujadu fi l ardi man huwa aalamu minni bihima mu ne doo gis mukk koo xamante ne nekk na ci kaw suuf si du dox gën maa dégg alquran gën maa dégg sunna xam nga ne loolu déclaration bu rëy bu mag la mm-hmm. te dund na ba jóge fii kenn musul weddi loolu ndax fépp foo xamante ne géewalee nañ ko ci xam-xam mm. Cheikh Ibrahim bu waxee rek mm. daanaka noppi rek moo ci topp dama lay indil quelques exemple laata mm-hmm. maa ñëw ci jàngam mm. Cheikh Ibrahim Niass euh, maanaam euh, ñi ko doon topp dañuy ne radduhu ala tarafi lisaanihi ñu ne tontu Cheikh Ibrahim mu ngi ci catu làmmiñam da laaj lu rëy mu tontu la lu ndaw yaa ngi dégg mm. Cheikh Ibrahim Niass amoon na benn jamono waa réew mi fii ñuy naan socc bu tooy kenn du ko soccoo ndax tey dog koor mm. waaye nga yaakaar ne la leen tontu mm. mu ne leen ñiy wax loolu yaakaar naa duñ jàpp ndax ndox moo gën a tooy socc gis nga lu mu tontu muy xikma nga ñëwaat ci beneen xikma am benn benn bës benn xaritu làbbeem nga xamante ne Cheikh Ibrahim gannaaw dégg na alxuraan yàlla mu ne laa yanhaakumullahu an allazina lam yuqaatilukum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim yàlla terewu leen ñi nga xamante ne bokku leen diine waaye xeexuñ leen an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ngeen maanu si ñoom ba pare ngeen di sekk maanaam lu rafet mm-hmm. moo tax eh, benn ci làbbe yi nga xamante ne mu dëkk mu ngi dëkkoon ci Euh, côté Fatick bi benn jour mos na invité Cheikh Ibrahim benn reer waaye ba mu ñëwee Cheikh Ibrahim moom waa labbe bi tegal Cheikh Ibrahim couscous lekk yi nga xamante ne moom moo dagan ci jullit mu tegal ko ko waaye ba naan bi ñëwee labbe bi doful sax bay xelil Cheikh Ibrahim naan ko Cheikh Ibrahim nangam ak nangam mm. waaye ci loolu benn curiosité ñëw ci xelam mu ne ko waa sëriñ bi yéen maanaam da ngeen di naan jullit ngeen du ngeen naan euh, maanam sàngara maa ngi jégalu sax ci wax bi waaye mm. jàngale la yaa ngi dégg mm. mu leen waaye yéen euh, euh, li ñu defaree sàngara bi diw boobu noonu olive bi cosaan boobu lañ mm. toggee maanaam euh, kii bi couscous bi lu tax nga mun koo lekk fi yow pare nga ne yow fii doo ko naan <laughs> waaye bàyyi du ko tontu sax ci ay téer da ko ne xale buy nàmp ci weenu yaayam lay nàmpee waaye ku bon noonu yaramu yaayam jox ko deret bi du ko lekk du ko naan te lépp maanaam ci yaay ji la jóge gis <laughs> nga xikma boobu mhm. nga jóge feneen am benn <laughs> shérif bi nga xamante ne dafa ñëwoon ci Cheikh Ibrahim mhm. xam nga di ko di ko seet ba pare di sàkkuwaale addiya ndax bàyyi ñëpp xamoon nañ cofeel bu mu am ci yonent bi sallallahu mhm. boo ñëwee nga kaalawu doon ku ñuul sax nga gën a ñuul xartaan yi nga ne ko shérif laa yow yaay fanaan ci kaw lalam ndax mbëggeel bu mu am ci yonent bi sallallahu alayhi waaye nag ñenn ci ñoom dañ doon ñëw am beneen arrière pensée mhm. ndax am na kenn ci ñoom dafa ñëw fekk Cheikh Ibrahim amoon na benn bëkkaneem boo xamante ne mu ngi tudd Jibril Sàmm mhm. génn na àdduna sax yan na ko yàlla yërëm moo doon dawalal Cheikh Ibrahim yaa ngi dégg mhm. waaye shérif boobu dafa amoon lu mu doon dégg dafa déggoon ñu naan Cheikh Ibrahim day woote ne mooy yàlla taalibeem yi ay malaakam lañ xam ne loolu du amul <laughs> waaye Cheikh Ibrahim moom gannaaw shérif la du wax dara yàlla def nag shérif boobu jour boobu mu tombeek bëkk néeg bu tudd jibril moo leen doon servir bàyyi dinaan jibril kada ifaal kada ifaal kada ifaal kada jibril defal nangam defal nangam defal nangam jékki-jékki shérif bi ne Cheikh Ibrahim ah Cheikh Ibrahim est-ce que xamoo ne imaam Malik dafay tere ñu tuddee ni turu malaaka yaa ngi dégg mm. loolu dañ koy tere xam nga wax na loolu bàyyi mm-hmm. bàyyi noppi mu waxaat loolu bàyyi bàyyi noppi mu waxaat troisième wax bi bàyyi ne ko usturu malikan malik mi wax loolu ni ngeen ko suturaal waxu ko ne li nga wax amul de waaye daf ko tontu ci xam-xam parce que li waral loolu mooy malik turu malaaka la yaa ngi dégg mm. donc bu fekkee da ne malik moo wax loolu te malik turu malaaka rek donc yow li ngay wax ni amul <laughs> donc gis nga moo tax ñu ne radduhu ala tarfi lisaanihi mm-hmm. donc moo tax ma taxaw ne ki nga xamante ne dafa def déclaration ne amul kenn kuy dox ci kaw suuf mu gën maa dégg alxuraan mm-hmm. wala sunna kooku wax dëgg dinañ laaj kii fan la jànge fan la jànge waaye loolu moom moo ñuy tontul boppam mm. ndax euh, ci fin dundam am na benn journaliste bu nekkoon rajo Gambie ñu koy wax Mansour Ndiaye Mansour Ndiaye ñëwoon mm. na ci Cheikh Ibrahim yaakaar naa interview boobu ñu bëri dégg nañ ko mm-hmm. mu ne ko waa Cheikh Ibrahim yow fan nga jàngee yaa ngi dégg mm. bàyyi reetaan mu ne man sama bàyyi moo ma jàngal mosuma jàngee kenn ci moom mu ne bind bi ma njëkk bi ma bind biñ ma mujjee jàngal sax sama bàyyi moo jàngal mm-hmm. donc da gis ne bàyyi judduwul rek dal ci daara bi eh. juddu na ba dëgër soog dem ci daara bi mm-hmm. te nekkul chaque jour lay jàng ndax amoon na ay jours yi nga xamante ne dafa doon dem di wattu toolu baayam mm-hmm. yi te ci loolu sax imaam Hassan mos nañu ci wax benn anecdote bu retaanlu mm-hmm. am na benn pël dafa romboon Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim xam nga buy jàng day jàng ci kaw ndax arab yi dañuy wax ne boo jàng di jàng ci kaw li ngay jàng day gaaw a mokk Cheikh Ibrahim di jàng alquran ci kaw yaa ngi ni yaqraul qurana bi sawtil aali ci kaw di yuuxu yaa ngi dégg pël bi romb ko mu ne ko yow xale yi waa yow looy wax yow li ngay wax bëri na de yow damaa romb fekk la ngay wax mu ñibbi fekk la ngay wax yow mbaa dara dalu la <laughs> fekk xamul ne Cheikh Ibrahim alxuraan rek lay jàng mm. da gis ne donc koo xamante ne jàngul temps am yëpp lenn li daf koy nekkal ci xidma xidma waay juróom yi mm-hmm. donc kooku xam-xam boobu da xam ne dëggantaan lii mayu yàlla rek la mm-hmm. mun doon yaa ngi dégg mm-hmm. moo tax da gis ne waayu waayu yàlla mm. yàlla euh, du bëri intermédiaire ci moom ci moom moo tax dangay ngay gis sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloy xikmatu li tax ñi nga xamante ne ñoom la naroon yaakaar sukkandiku ñëpp mm. yàlla daf leen fi jëlee baayam jëlee na ko fi laata moo mm-hmm. judd yaayam ba yonent bi amee juróom benni at jóge na fi mm-hmm. maamam ba yonent bi amee juróom-ñeent at jóge na fi nijaayam kada yaa ngi dégg donc yàlla buy defar waayam mm. képp koo xamante ne kooku mun na ko mun na cee sukkandiku. Mm. pour wax ne kii li mu am nii maa tax rek. maa tax yàlla dafay éliminer kooku. macha allah am na solo ci li nga ubbee xam naa ni cheikhul islam moom 75 ans. Euh, dina jafe ci jataay bu bu gàttee ñi ñu jukki lu ëpp ci moom euh, jukki léppam waaye dañ ci jël rek euh, ngir barkeeloo ko bisu tey bi am na solo kon Cheikh Isaaxa dégg nga kilifa gi li mu indi ci cosaanu ki nga xamante mooy mooy Maolana naa al Islam ci ñi ko meññi. ba ci moom bi juddoo ak déclaration bi mu wax ni wax na ko di firndeel euh, boroom xam-xam bi mu doon wax na sax ci ay waxam ba ni man dox naa ba dajeeg jëmmi xam-xam waaw loolu yëpp ci ay ci ay ci ci ay waxam la du ñàkk am loo ci dolli laataa ñoo ñëwaat ci yeneen bayt yooyu ñu may wa alhamdulillahi lazi hadana li hadha wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin il fatihi lima wal xaatimi lima sabax nasiril xaqi bil xaqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم يا أيمة الشيخ أخضر لنا بهذا المقدر وتحتي في نظر تحتنا في سفري وبعد gannaaw bañ sant yàlla julli suñ sang Seydina Muhammad sallallahu ñu ngi nuyu ñëpp particulier ñu bokkal plateau bi ci nuyu bu ñu yàlla boole muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi alxalifatul am mm-hmm. Mawlana Cheikh Mahi Ibrahima Niass toftal ci imam ba mm-hmm. Mawlana Cheikh Tidiane Ali Cissé toftal ci représentant xalif bi ci Dakar mm-hmm. muy Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ñooñu buñ leen nuyoo nuyoo nañ mbooleem njabootu Cheikh Ibrahima Niass bi mm-hmm. di leen ziare waaye di yëkkati sunu njëbbal di koy yeesal ñoom eh, di kontaan ci laaj boobu nga ñu laaj eh, Cheikh Ibrahima Niass man nag Cheikh Ibrahima Niass buñ ci wax Eh, lu ma gën a jàpp ci moom mooy sëñ bi ci lu ñu ne ko sànq sëriñ sëriñ Mouhamed Diakité mooy mbëggeelam ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi tagg yi ñu ko doon tagg yëpp mhm. boo tagg bu ko ci gën a neex mooy bàyyi moo bëgg yu rasulullah alayhi salaam mhm. waaye mbëggeel googu poussé ko ba mu ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu mooy suma lekk mooy suma naan mm. mu ne déet waay bàyyi mu ne wa fa wallahi maa fil xalbi xatun li xayrihi fa xayru rasulullahi laysa li taalam mm-hmm. mu ne sama xol bii dara fees ko lu ñu bëgg rasulullahi alayhi salaam dem bay wax sax naan mm. mbébét dab ma ci bëggee yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa ngi mbébét loo jomb mu ngi mel ni ngay jëlee nga bëgg indi démb ci tey mm. man raama darqi fi siyaaqi nabina xadraam hamran mustahilin muharram kon mbëggeel googu waaye doyloo gi surtout maanaam doyloo gum doyloo yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. bëj ne yonent mooy sama ambassadeur ambassadeur boobu nag day indi sax yenn saa yi nga dégg ñenn ñi di wax naan amba bàyyi fu mu taxaw bay jël yéen teel administration di ko def ambassadeur jël ambassadeur ba sax utal ko mhm. te ko fa waaye loolu mu ngi wane kóolute ak confiance gu mu am ci yéen teel Muhammad sallallahu mhm. ba diggante moom ak yàlla yéen teel moom sallallahu alayhi wasallam la fa teg. ba ne lépp bépp may boo xamante ni yàlla ma ko may bu ko jaaralewul ci yéen teel Muhammad aw ma soxla ci mhm. kon loolu doylu la. loolu confiance la. Eh, mos sa jéggi eh, eh, yoonu yéen teel moom si surtout raaxu mm. bu yonentu doxee maa ngi dox mm-hmm. bés bu taxawee xam nga taxaw du am mm-hmm. parce yàlla lay dox mm-hmm. wane ne léppam loolu nag mbëggeel gi ak doylu gi moo ko indi résultat bi moom am tey résultat bi mooy lan hmm. fal ummati xasdi fiimu anasuxum ila xadrati bali rahimilahin moom la yàlla def tey mu nekk baabul maarifatu billah buntu xam yàlla ci moom la ñuy jaar lu rëy la hmm. te dinañ ci laal sax lépp ci géej googu noonu nga wax ci kii bi dafa mel ni bi bi ngay laal ci ci mbëggeel gi ci wax ci yonent bi sa alayhi wasallam da ngaa maasaale Cheikh Mohamed mu mel ni dafa am fu mu la laal ci euh, parce que sànq bi ngay wax yaa ngi wax Euh, maanaam léppam dafa mujj doon yonent bi salaa salaam ba sax ñoo nuroo bés yeeg bu ñuy màgg fi mm. mu mel day dem ba duggalante fu mel ni sama waa ji am na fu mu la laal ci foofu waaw maanaam euh, mbëggeelu yonent bi ci Cheikh Ibrahim wala mbëggeelu Cheikh Ibrahim ci yonent bi fu ñu ci waxee rek képp kuy taalibe war nga yëngu <laughs> ndax euh, pour sàkku cofeel boobu moo tax nga topp baay ndax yonent bi wax na ne laa yumin ahadukum xata akuna haba ilayhi min nafsihi wa min nafsihi wa waladihi wa walidihi maanaam laa yu'mina du gëm ahadukum kenn ci yenn xataa ndare akuna man yonent bi ma nekk ahabba ilayhi ma gën a soppoo ci moom te loolu dafa utiliser li ñuy wax ci arab al afaala tafdili mm. maanaam euh, superlatif gën a ahabba ilayhi min kulli cheyin maanaam nit ki gëmam yàlla du mat mukk lu dul man maa ko gënal lépp mm-hmm. en tant que yaa ngi julli yaa ngi woor waaye yenent bi gënaloo ko lépp rek wala yenent bi gënalula sa lépp yow bàyyil julli ndax yenent bi moo gën julli mm. ndax ñëpp jàng nañ ci axdar yi ñu ne bu ñuy julli sax nga dégg ñu wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam mun nga wax sallallahu alayhi wasallam kon ne su julli loolu yàqul julli mm. nga xam degré yenent bi ndax booy dugg ci islam looy wax mm-hmm. kalimata shahaadatayni wala kalimatu shahaada la ñuy wax baatub seede waaye ban seede ashhadu an laa ilaha wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li yéeme foofu mooy est ce que xam nga ne boo waxee ashhadu an laa ilaha illallah kese te waxoo muhammadan rasulullah ne ko goo jullit hmm. waaye boo waxee ashhadu anna muhammadan rasulullah kese te waxoo laa ilaha illallah sa jullit wér na ndax yàlla mu ngi lay nangulee ci buntu yonent bi in hmm. kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah hmm. in kuntum neem nekk ngeen tuhibbuna la ne bu fekkee da ngeen wax ne bëgg ngeen yàlla mooy zaatu bi fa tabiuni topp leen ma ma maay sifa bi yaa ngi dégg mm-hmm. maanaam bu fekkee bëgg ngeen yàlla jëmm ji ki nga xamante ne melo bi nga xamante ne moo la yóbbu ci jëmm ji kooku maanaam munoo ko bañ mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. donc da gis Cheikh Ibrahim buy wax ci mbëggeel yonent bi da yaakaar ne kii sax maanaam euh, dafa am lu manqué ci moom ndax maanaam dootu fi nekk da ngay dégg mu naan xaali ma Mustafa laa aqla yudrikuhu ilaahu munzilal kutubi man sama xaal sama état sama diggante ak yonent bi képp ku koy jéem a comprendre ak sa xel da ngay daanu ndax laa aqla yudrikuhu xel mënu koo leem li lay noppal daal salla alayhi llahu munzilal kutubi yow daal ñaanal yàlla mu julli ci yonent bi point final waaye bul jéem a lijjanti sama diggante ak yonent bi ndax Baye dafay wax digganteem yonent bi benn niveau bi nga xamante yow da naan kii mais boppam lay wax wala bi lay wax mm. sànq ba may ñëw maa ngi liir benn euh, passage ci Jawahir Rasail Baye dafa ne sirroom moom loolu kenn xamul lan la mu ne moom sirroom moo taxaw di ko laaj Cheikh Ibrahim hal anta min al awliyaa illahi allazi yarawna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqzatan la manaamin ka baad ar rijal Cheikh Ibrahim ndax am yow bokk nga ci wàllu yàlla yi nga xamante ne dañuy gis yonent bi yaqzatan comme ñeneen ñi Baye xam nga lu mu tontu ruuxam hmm. wala sirroom arju zalika min allah loolu moom maa ngi koy yaakaar ci yàlla waaye xoolal lim ci teg mu ne walakin uhibbuhu sallallahu alayhi wa sallam wa aarifuhu wa aarifuhu maarifatan yaa ngi dégg law adraktuhu xayan wa saaxabtuhu lama daadani fi daynika shay mu ne man bëgg naa ko sallallahu alayhi wa bi wa aarifuhu te xam naa ko xam boo xamante ne bu ma fekkee woon jamonoom bu dund ak moom li ma ko bëgg wala li ma ko xam du yokk wala waxu bàyyi mu ne man fekkoon sax fekkee woon naa jamono yonent bi sama mbëggeel du yokk ndax lu tax fa inna nii man ahwa bi kulli sifaatihi dem naa ba gis ne ndeke man ki may bëgg mal la waaye bi kulli sifaatihi ci mboolee mi melo yonent bi man maay ki ma bëgg moo tax mënatul yokk parce que dafa def ba gis dafa dem ba gis yonent bi ci biir jëmmam nga dem feneen mu ne aliqtu bihi wannaasu fi sinatil kara تمتعت منه الدهر إذ كنت مفردا وزوهمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا علقت من شيخ برام علقت به أجونا تنتبي ويلولو كان لا والناس في سنة الكرا boobu nit ñi ñu ngi ci nelaw ak gémmintu bu ko cheikh cheikh Maye Cissé di firi dafay naan ci nelaw ak ñàkk am la ndax foofu am amu fa sax bay nelaw aliqtu bihi wannaasu fi sinatil kara tamattaatu minhu dahra iz kuntu mufrada bànneexu naa ci cofe yonent bi iz kuntu ba ma nekkee man mufrada di kenn loolu kenn xamul fan la bàyyi mu ne wa zuhimtu fi hada zamani wa innani ñu ngi man nag naan bëgg naa yonent bi xam nga ku nekk di bëgg quoi mm. te loolu c'est normal yaa ngi dégg waaye walaaki uzuhimtu fi hada zamani wa innani la fi ghiratin min man yarumu muhammada mm. man képp ko bëgg yonent bi sax fiir parce que man damaa jàpp ne man rek maa ko war a bëgg yaa ngi dégg wa zuhimtu fi hada zamani wa innani la fi ghiratin mimman yaru muhammada walakinani jallaytu qabla sibaqihim wa qad niltu tabrid alquruni li ahmada walakinani man jallaytu qabla sibaqihim bu fekkee dañuy course pour bëgg yonent bi man raw naa bu yàgg ndax lu tax li mu la njëkk a wax damaa dem ba gis ne ki may bëgg man la mm. donc lépp looy daw ci jéego bëgg yent bi man sama biir tool nga koy dawee waaye yëgoo loolu mm. nga gis maanaam ci beneen bayt mu ne maanaam saraytu bi ruuxi aqtafi jisma ahmadin mm. fa tamma liqaaun bayna zeyni hunaaliki mm. mu ne ruuxoom moo rañaan jëm ci jëm yent bi sallallahu alayhi wa boo gisee taaram bi yëpp laay yonent bi nekk ci moom moo tax mu mel nii dama lay wax benn benn anecdote bàyyi mos na dem Soudan dafa dem Soudan toog di waare te foofu ay boroom xam-xam lañ yaa ngi dégg loolu mhm. mu toog di waare toog di waare toog di waare jékki-jékki benn waaye di ko xool di ko xool di ko xool jékki-jékki ba Cheikh Ibrahim di génn di nuyu nit ñi rek waa ji jàpp loxo Cheikh Ibrahim mu màtt fii fii la màtt Barham Diop moo ko nettali ndax moo ko fekkee mu ne waa ji loxo Cheikh Ibrahim la màtt waaye ba mu màttee Cheikh Ibrahim yuuxuwul waxul dara dafa dal rek xam naa ne donc yëgul yëgul métit bi mhm. mu bàyyi bàyyi baay baay bàyyi baay ba waa ji jël lu muy jël ci deret parce que waa ji ndeke dafa bëggoon deretam ak deretu Cheikh Ibrahim jaxasoo waaye waa ji après dana wax lu tax mu def loolu après ba ko gars yi ne mais yow li ñu yow rusloo nga ñëw ñu indi suñu gan bu màgg bii nga koy def lii mu leen man li ma gis boo leen ko gisoon di ngeen def lu raw li ñu ne ko loo gis mu ne man dama gis ne suñu gan bi ba muy wax ma ñu leen bi laa gisoon ci kanam te man nag bëgg naa man sama deret ak deretu yonent bi jaxasoo te ñun bàyyi leen gis waaye kii muy gis leneen loolu dafa yéeme. Mm-hmm. moo tax dégg comme li ma la wax mu naan xaali ma al Mustafa laa aqla yudrikuhu mm-hmm. nga ñëw ci benn biir mu ne wazal abdu faanin laysa fihi baqiyatun fama huwa illa al Mustafa lil munaqili mm-hmm. wazal abdu jaam bi faanin Ibrahima Niass boo koy wër xamal ne doo ko am mukk <laughs> parce que moom jóge na fi faanin jeex na ci kan la jeex laysa fihi baqiyatun maanaam dara dafatul ci Ibrahima yaa ngi gis Ibrahima di dox nii de waaye fi fa mahma taraani far rasulu damiru mm. yow gis nga ma de waaye yonent bi moo laqatu ci man maanaam boo ko xàmmee woon da nga xam ne dëgg-dëgg ñaari maanaam amul. amul amul différence allah jërëjëf xaaj li ñu cërale ci waxtu mi ngi jëm ci mu jeex te euh, ñu am yeneen yu ñu laal ci ay poñ euh, yéen a ko yéen a ko tudd mooy euh, digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak gi du ñàkk it di nga ci ñëw léegi ak ay bayit ak leneen loo ciy sof ñoo ñëw parce que waxtaan bi macha allah am na solo nii. ci ni ngeen ko ni ko jukkee nii ci diggante yonent bi sallallahu alayhi ak Baye lan nga ciy dolli kilifa gi ñu bàyyi la nga yëkkati xam naa ni micro bi mu ngi lay aal bismillahi wa salami ala la bi sayyidil kiyaani wa

الموس رسم الرموز تاج الوروس سبها المداني ألف صلاة مع سلام على الحبيب سيد الكيان فرد بردا دميت أبدا رحمن ولا أذن تاج تجاني ألف صلاة مع سلام على الحبيب سيد الكيان قوس الإبان نفو البلاد يقولتها قيره المهاني ألف صلاة مع سلام على حبيبي سيد الكيان عبد الله قليل الله حبيب الله مختم ذلك ألف صلاة مع سلام على حبيبي سيد الكيان رد الأجاز إلى صدور حياتي مهنا المعاني ألف صلاة مع سلام على الحبيب سيد الكيان حرم القروم فم الفهوم قدم القرآن نافي السنان ألف صلاة مع أن رب ديناني الصلاة ما سلا من على الحبيب سيد الكيان هذا مهيب يهيب صدقا فأنت صدق في الامتنان الصلاة ما سلا من على الحبيب سيد الكيان أن تراي الجناب شيقي رجوت منه دور المهاب بلا كمال سميت منه نيل الأمان الغزلات ما الألام على الأبيب دين الكيان تمت مقالي بلا كمال سميت منه نيل الأمان الغزلات ما الألام على الأبيب عبد الله Sénégal mbootam sa tur teer Sénégal looloo waral tey Sénégal misaal ay habdu toog doon sa misaal Abdoulaye yaay sunu gaal moo ay habdu toog doon sa bi aawinin demal nga seeti alquran da xam ne baay ña sofi mana man Abdoulaye semena man dama xoolo sal baa ngi def gu weex gu ñuul ma xam ne ñaas yaamu na mbaal baraama ñas moo di sa mbaal ma yemuloo ci Sénégal Abdoulaye ak suñu gaal mbotam satu ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay Abdou Top Sénégal tariqa Cheikh yaa ko dundal te boole ko sunna Rasul ndax Cheikh Baye yaa ko sëkkal yaa jóg taxaw di bay sa tool ma waral ca Sénégal ay Abdou Tour doon na misaal fay dem ba na bëggi na yéen a tukkeem lu mu wane wuti wuloon xaalis ma ne fay doom la dono yóbbu fu ne mam Abdoulaye ye suñu gaal moo tam sa a duniya lañu jiwana fayda mbaraw na koon tol ni janaatul adana Abdoulaye yaay suñu gaal botom sa tur ca waral ca Sénégal ay Abdou Tour ndamilaal Makka ko woon ak Fas ko moom may xamal man na ñëwoo ko ak gaaya woon ànd ak woon te Medina niroo gowro Abdou Tour ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay Abdou Tour am Abdoulaye mamam yawoona sulol lime mooy addenaan loolu waral Ahmed Tidiane faye ko fay dul addenaan jom day gën di yaa Mame Abdoulaye mbootam sa tur Sénégal li ma waral te Sénégal ay Abdou Tor misaal kuy conférence na tedd bàyyi institut islamique bi moo di bàyyi bàyyi moo takku takka xam-xam di jooy moo yore mboo te du ko jaar Mame Abdoulaye yaay mbootam sa tur Sénégal ñuy daal gumba yi leen tey bàyyee na ñu tey bi ngeen gis la woon maam Abdoulaye moo fa tey tey na na fa ñu leen ndeke loko yi wolof la woon ah. mbut lañ tey yan yow ub ko fa woon ba ñëw juddoo tey a seet Abdoulaye ya suñu gaal mbotom waral ci Sénégal ay Abdou Toor def sa misaal ku fi yara lañ ci xamoona maam Abdoulaye gisaat ah. du ne sa toor ca Sénégal li mu waral ca Sénégal ay gaal moo yóbbu gaal ak kapteen bi teera na Sénégal ñëw na ci gil te bu ñuul xet buñ bañoon na ndax mu tuur Mame Abdoulaye yaay suñu gaal moo tam sa teggi jaam may sem misaal Abdoulaye ya suñu gaal mbotom sa toor ca li ma waral ca ay Abdou Toor doon sa misaal Ndakaaru ñaay woo ci tey déglu firim Dakar mu leer ah. rijaalu laay ñoom ñoo fi teer ngir seenu baay borom si kara nañu ni nga dikkee yaa teer si siin ah. yaa tukki siin dem ba fa def yaa ko njëkkee maam Abdoulaye yaay suñu gaal mbotam sa tóor ca li ma waral te Sénégal ay Abdou ah. mi rema mi fay lekk bogale jaam ba du sikk yow yaa ñu laal ñu mot sikk misaal karama lewoon na la yaroo sikkee la jël na di puukaroo na ba dema ja yaroo ñes moo lewet bay moo yaroo na Madina luy njëriñoo Maam Abdoulaye ya suñu moo tam sa tur ca li ma waral ca Sénégal ay Abdou Toor doon misaal Medina mooy Medina Baay dinem ju mat sun pays moo yore mbootum Cheikh yi waay marka jazir moo ko waya sàmm moom duñ ko saam kon wuy si leen te nekk jaam si seeki baay mu sanc saam ay suñu gaal mbotam sa tur te Sénégal li ma waral te Sénégal ay abdu tool dondom yi daal ay day rama te mooy dundama lépp dana leer ci kaw mu dem looloo waral ñu xiir ci baay commencé teeg ay junjëm Sénégal mbootam sa toor ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay Abdou Toor doon misaal ay ku ko baña dañ ko beral karawaasu der mu dee sa xol ma doomu jaagoram bu daral ngir moytu loo ñu koy sikkale gannaaw rajo ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay Abdou Tor dootum misaal. dootum mi gépp guga xeeb a doodan ci ñëpp di la ndax Seexi Baay moo servi ñëpp ci penku xarfu ak ci fépp. Abdoulaye yaay suñu gaal mbëtam sato ca Sénégal li ma waral ca Sénégal. yàggu toog doon sa misaal bari nañuy taal courant te xamuñu secteur ba leen ñor loolu dal gaayu réere ku Cheikh Baay mu yore leen Abdoulaye yaay suñu gaal ba doon sa doon te li ma waral te Sénégal ay yàggu toog doon sa misaal baay sëriñ ci yéen la fu leen te ñëw aw leen fu nareega aw sey aw mam Abdoulaye ya gaal bu dem fetu te Sénégal li mu waral te Sénégal te ambuto dem Sénégal ndeysaan allahu akbar ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax euh, Cheikh euh, Euh, Isaaxa Bari ci sikkar yu am solo yaa ngi may fàttali ndeysaan lu yàgg ñun bi ñuy soog a euh, dugg ci faydu bi ndeysaan en 2004 2005 2006 sikkar yi lañ daan dégg mu ñuy fàttali ah ci wolofal bu am solo bàyyi fan la tàmbalee ah, euh, macha allah daal ñu ngi lay gërëm di la sant yàlla def na nag li ñuy cërale ci waxtu daanaka jeex na bëggoon nañoo dugg ci am solo kilifa gi mhm. waaye du ñàkk nga am message bu am solo mhm. boo bëgg bàyyee umma islamique bi rek bàyyee ko àddina ci juddoog Maulana Cheikh al Islam. Mhm. Euh, xëy na ci yoo xam te dinañ ci ñëw. parce que mhm. lii yaatu na yaatu boo xam te ne war nañoo mën a ñëw ci Baye ak tukkee mi panafricaniste bi ñu koy woowee. Euh, fan la bàyyee ko ak xam-xam. Mhm. ndax fu mel ni Caire foofu la ñuy nuytoo te dem na fa def na fa euh, jaloore. du ñàkk yooyu yëpp incha allah nañ ko topp ñëw ci. ban message nga bëgg a bàyyi tey. loo jàpp ne am na solo ci guddi gi. ginnaaw li ñu waxtaanee. bàyyee ko ci ñëpp ñuy bàyyi xel jamono ji. waaw di kontaanaat ci zikar yi waaw di leen euh, delloo ñaan bi Cheikh Ibrahim waxoon rek mhm. wa taqbalu amdaahi wa taqbalu man yax kii yàlla nangul ma sumay tagg te képp koy jàng nanga ko nangul tamit yaa ngi dégg azakiruuna allaha mhm. ay xudaamul faydati kulluhum humaamu mhm. bàyyi dafa ne ñi tudd yàlla ñoom ñooy liggéeyal faydu bi waaye ñoom ñëpp sang lañ macha allah donc ñii ay sang lañ na leen yàlla yokk yàlla defal leen xéewal lépp lu ñuy yaakaar seen zikkar bi yàlla may na amiin yaa rabbi kilifa gi donc message yi ñu mën a bàyyi ci ku mel ni bàyyi bëri na <laughs> mhm. ndax bàyyi léppam njëriñ la mhm. boo jëlee ni mu doon yaree taalibe yi yaa ngi dégg mhm. côté boobu da gis ne bàyyi dafay teel a responsabiliser nit da xool ku mel ni Barham Diop nga xamante ne ba muy dugg ci secrétariat Cheikh Ibrahim daanaka dix-neuf ans la am ba nu muy génnee àdduna mus cee génn parce que Baye dafa ne fa inni laa araa fi sinna <laughs> man bu fekkee ay âge man gisuma ci ay euh, obstacle l'essentiel mooy na am xam-xam ndax bàyyi xam-xam daf ko ñor ndax bind na benn téere buy wax ne tabsiratul anam bi anna tabsiratul anam bi anna al ilmu huwa al imam <laughs> maa ngi leeral mbindee yi di leen won ne lii tax nit ki ñu koy def njiit mooy na am xam-xam <laughs> âge amul soro ndax da xool exemple ku mel ni Cheikh Ibrahim mm. wala ku mel ni Cheikh Tidiane wala ku mel ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ne ñooroonu woon ci moom ci jamonoom ci ay saxaaba mm-hmm. la plupart du cas ñëpp ay xale lañ da ngay xool ba yonent bi eh, xare bi mu mujjee yebal ki mu yebal mu ngi tudd Usaama ibnu Zaydin mm-hmm. ba mu koy yebal xare boobu Aboubacar mu ngi woon ci ronom mbooleem saxaaba yu mag yi ñu ngi woon foofu ndax su ma tuddee Aboubacar yóbbaale la ñeneen ñëpp te xale boobu mu ngi amoon 18 ans. est-ce que maa ngi naan xale sax te saxaaba la. 18 mm-hmm. ans la amoon. Mm-hmm. da nga gis âge boobu mais yonent bi dafa gis ci moom bravoure. parce que yonent bi dafa xamoon ne bu bës bu jigee fii. Mm-hmm. Ababacar Umar Ousmane Ali duñu amati temps di dem ci au front. moo tax mu teel a yebal xale. waaye dafay wane ne maanaam islam ñii ñoo koy màggal. loo tax mu responsabiliser xale. nga ñëwaat tamit ci Cheikhu Tidiane. Cheikh Tidiane est-ce que xam nga ne ki mu tegoon intermédiaire digganteem ak yonent bi muy Muhammad ibnu ibnu Arabi ah. ad-Damrawi mm-hmm. kooku bu muy génn àdduna vingt-huit ans la am kooku du ma xam nga <laughs> te intermédiaire kooku moo doon gis yonent bi vingt-quatre fois par jour nga xool responsabilité boobu dara gënu ko mag responsabilité boo xamante ne toll na ni yow yaay jëlee message ci yonent bi sallallahu alayhi yàq sallam yàqzatan di ko jox Cheikh Tidiane <laughs> mbooleem sirru yi nga xamante ne am nañ ko ci tarixa bi la plupart ci damra yu la jóge yonent bi jox ko ko mhm. bokk na ci jawharatul kamal bi euh, yonent bi moo ko jox damra yi mu jox ko Cheikh Tidiane mhm. nga ñëw foofu tamit da gis ne Baye moom amul woon comme li may wax rek maanaam obstacle ci âge l'essentiel mooy na nga jàng mhm. nanga am xam-xam te na nga jub ndax ci beneen wax sax ci benn gàmm wax na ne inna mustaqbalat kulla watanin yatawaqafu ala shababihi la ala kulli shabab bali shabaab almusaqafina bali shabaab almusaqafina wa zu axlaaqi alhamida wa himmatan mu ne futur bépp génération mu ngi reposé wu ci jeunesse am bàyyi mu ne nekkul n'importe la n'importe quelle jeunesse waaye jeunesse bi nga xamante ne musaqafina dañoo am culture générale te culture générale jàng moo koy wa zu axlaaqi alhamida dañoo jub am jikko yu rafet te am yéene yu kawe. Mm-hmm. maanaam ñoom dañuy viser le au toujours comprendre nga. Mm-hmm. maanaam ñi nga xam ne dañuy am yitte yu kawe ñoom ñooy mun a maanaam teggi obstacle yi nekk seen kanam. ba tax maanaam uh, fi ñu bëgg a arrivé ñu arrivé ko kooku da gis maanaam njëriñ bi Cheikh Ibrahim. Mm-hmm. jox maanaam uh, ndaw ñi. ci lu mu indi. te da gis ne lu mu indi ndaw yi ñoo ci ëpp. da ngay gis taalibe Cheikh Ibrahim ay ndaw rek ñoo ci ëpp waaye koo ci gis rek bu duggee yow ci ay géeju xam yi nga xamante ne daana ci ay téere nga ko doon liir mm. wallahi bu jàkkaarloo yow wax ak yow rek di nga yéemu lool parce que ay xale yu ndaw rek ngay mm-hmm. gis ñuy wax ci ay butoonu zaat mm-hmm. ay fanaahu ay xadaraati ay laahut malakut jabarut naasuut mm-hmm. loolu booy wax ak nit day naan da ngay lépp sax <laughs> fekk li ngay wax lu leer la waaye ku dellu ci ki lay wedd ci téere sëriñam dana ko fa fekk nga gis ne lii nii xale bu ndaw moo koy wax yaa ngi dégg donc xanaa rek di gàttal fii rek macha allah gannaaw maanaam arab dafay wax ni al waqtu ka zayfi mhm. in lam taqtaahu mhm. yaqtaaka mhm. maanaam heure dafa mel ni jaasi boo ko dawul mu dog la donc ñu ngi koy dog balaa mu ñoo dog macha allah salaamaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi lay gërëm di la sant Cheikh Mohamed Diakité ñu fàttali ne mu xaddamu bàyyi la macha allah àndal na ñun ci waxtaan donte nag taalibe lay xëccoo ba léegi benn la rek <laughs> taalibe yi ñooy sëriñ si Cheikh Issa du la yow nga am kàddu yoo yoo yoo jeexale laataa ma ñëw ci Cheikh euh, Babacar waaw euh, Ousmane ñu ngi lay gërëm encore une fois ci invitation bi <laughs> mu ko def di la gërëm aussi ci yeneen parce que yaa ngi ci li ñu sànq uh-huh. maag yow dutee dañoo dafa yàgg. dëgg eh, te gis nañ ne appui ngay def suñ carrière ci si kàllu sikar bi. ñu ñaan yàlla lépp lu ci yiw rek yàlla ñu ko yàlla boole. di barakat Seydina Muhammad surtout yow at at. jàppale gi jàppale nga jàpp am doole ci wàllu eh, réalisation. kon ñu ngi ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. di wax sëriñ bi nga ñaanal ñu ko yàlla bu baax. kon mbokk taal bu baax la. message bu ñuy bàyyi. Mm-hmm. mooy rek ne mm-hmm. sénégalais. Mm-hmm. mbala africain en général. Mm. sénégalais en particulier nañ enraciné suñu valeur. Mm-hmm. ndax mënoo am ku mel ni Cheikh Ibrahim ñas sa réew. Mm. nu mu toll ci diina nga ne da ngay uti référence ailleurs. Mm-hmm. boo bàyyee ñu mel ni Cheikh Ibrahim Niass sa dëkk dem na da ngay uti ailleurs ay référence mm. leneen nga fi ut diine parce que kamaalu diine moo tëdd. pour ñu marquer suñu identité ci réew ci monde bi foog ñu enchaîner suñu valeur d'abord ba téye ko léegi bu ñu s'ouvrir vers ñu xool li nga xamante moom méngoo suñu valeur yi ñu kone ko. bu ko defee dinañ tegu ci raayu. Mm. émergence boobu ngay wax. Mm-hmm. parce que valeur moom la ñuy nawee réew. Mm-hmm. te am nañ ko parce que am nañ ay mag yu baax yu fi ne ku mel ni Mawlana Cheikh al Islam mm. lu ma gën a neex ci moom mm. maa ngi lay doon wax sànq particulier mooy mm. liberté mu ngi koy wax sànq liberté bu mu indi sol ndax boo ne responsabilité rek liberté ñëw liberté bu mu sol ci mouvement soufisme moo tax tey mën nañ koo nommer Cheikh Ibrahima Niass père mm-hmm. parce que da cee indi liberté liberté parce que dafa ñëwoon fekk bu mu jaam am tënk am mu ñëw liberté dem na ba ci taalibe bi sax buy tànn sëriñ def na ko am na critères yooyu tànnee sëriñ wutul mu rabbiyan mhm. xabiiran naasiyan kamareer faani imaaman mu ne ku melee nii melee nii ci kanam <laughs> kon loolu nga déggee ci la mhm. taalibe bi am na droit am ay critique mhm. ci sëriñ bi loolu liberté la liberté ban mooy ne da ngay ñëw mu ànd ak yow ci at yàlla mais dem na ba boo yeggee sax bu ne la ana bàyyi nga ne bàyyi am lu am nga mooy yàlla gi mu wax. kii mooy jërëjëf kilifa gi. mooy am na solo ci message bi. jërë ngeen jëf ñu ngi lay ñu ngi lay remercier <laughs> jërëjëf kilifa gi du ñàkk it nga am yooyu it kàddu yoo ci sànni même bu dee jeexal la sax macha allah aw yi am na solo sëñ Babacar si sax <laughs> micro bi. nuyu ñi ma fekk ci plateau bi di nuyu sëriñ bi. Mhm. di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan wér. dëgëral ko kàttanal ko. lépp lu muy wut ci pay bi ñoo ngi ñaan ci barke Baye. yàlla na ko am ci barke Baye. di la ziare yow tamit. macha allah waaw di ziare sama mbokk Zakri bi. Mm-hmm. nga xamante ne sama àndandoo la sama lépp la. waaw man bokk na ci ñi ma gën a maanaam. Euh, dugal ci Zikar. Zikar yàgg nañ ma ak moom. Mhm. waaw am contentement bu rëy. dëgg la ci plateau bi. jërëjëf waaw di wax ne rek ñun ay taalibe lañ. dañuy bàyyi sëñ bi mu ñaanal ñu. macha allah ñu tëj. jërëjëf jërëjëf kilifa gi ñu ngi di gërëm ñu ñi doon bàyyi xel tamit. di leen xamal ni mbégte bu rëy la woon ci ñun ànd ak yéen ci spécial bi ñu jagleel Maulana Cheikh al Islam El Hadj gërëm bu baax Cheikh Mohamed Diakité mi nga xam te ne moo ñu fekk si ci jotaay bi euh, ci waxtaan bu am solo bi mu fi jukki loolu du du du dakk dafay wéy ndax am na yeneen jotaay incha allah yoo xam dinañ ci ñëw gën a leeral yi nga xam te ne jukki nañ ko fii gërëm Serigne euh, Cheikh Isaaxa Bari xam naa ne yéen laay bàyyee après ngeen jeexal même bu dee ñaari minutes sax ci zikkar bu koy tëj incha allah gërëm équipe technique bi nga xam te ñoom la ñu àndaloon ci euh, jotaay bi bu baax a baax di ziar tamit sunu Serigne ndax tey bu ñu mënee toog nii mu ñuy neex ñu koy wax ñu koy dégg Euh, ñu soobu ci yoonu Maolana Cheikh al Islam moom la euh, di euh, Cheikh Mamour Insa Diop ñu gën ko xam ci Insa Ruxullaahi ñu ngi koy ziar ci bis bi ndax moom it lu laal bàyyi da koy laal bokk ci muqaddam yi gën a mag ci àddina donc moom it ñu ngi koy ziar bu baax ci bisu tey bi ak képp koo xam te ne muqaddam bàyyi nga ñoom it ñu ngi leen di ziar bu baax di leen di leen di sàkku ñaan ci ñoom rawatina Sénégal fi ci toll nii soxla nañu dal soxla nañu également yoo xamante mbégte da ci da ci da ciy ne xel yoo xam dafay dal rawatina ci njiit yi nga xam ne ñooy sàkku jamono ji euh, di ut bëgg nañ it ut woowu ñu xam ni mun ñu ko am lu mooy ci dal ak it utin wu rafet loolu ñu ngi leen koy bàyyi xel bu baax a baax comme ni ko suñu kilifa diinay rawatina Maolana jàngale am na solo loolu it ñu leen koy bàyyiloo xel gërëm leen sant leen beneen yoon la ñuy dajawaat incha allah ci beneen numéro Equivox TV ci spécial yi nga xam te dinañ ko dinañ leen ko jagleel Euh, ñu joxandi daje du yàgg dara incha allah ci euh, plateau yi ni mel. zamzam la la ko ko am dootu reetaani. mu haqiqatu ku ko am dootul rootaani zamzam la zamzam la ku ko am dootul rootaani ndoxum nubuwatu ku ko am dootul rootaani zamzam la zamzam la ku ko am dootul rootaani ndoxum wilaayatu ku ko am dootul rootaani zamzam la zamzam la ku ko am dootul rootaani تقم خلافته كوكا أم دو تروتاني زمزم لا زمزم لا كوكا أم دو تروتاني ku ànd ak baay xam yàlla ku ko am dootul rootaani zamzam la zamzam la ku ko am dootul rootaani ku ànd ak baay xam yónnee na ku ko am dootul rootaani zamzam la zamzam la ku ko am dootul rootaani ànd baay xam cheikh ku ko am doo tudd rootaani zamzam la zamzam la ku ko am doo rootaani way leen ma baay ku ko am doo tudd rootaani zamzam la zamzam la ku ko am doo rootaani kañ la leen ma baay ku ko am dootu rotaani zamzam la zamzam la ku ko am dootu rotaani zamzam la zamzam la baay zamzam la la baay zamzam la la zamzam la zamzam la baay hamdan li rabbil alamin wa halal li qaila الثاني لا باي شمس الشموس لا باي رسول رسل باي تاج الهروس لا باي sabora masani la bay mufirdu um bardan la bay duitu abdan la bay rahman wa lafzan la bay taaju tijani la bay khawsul ibadi la bay naful biladi la bay yaqultu haqi la bay ruhul mahani la bay abdu ilahi la bay qalilu la ilahi la bay abibu la ilahi masaani la Cheikh Baye rëddul ajaasi la Baye illaa sudooril la Cheikh Baye العقيلة باي معنى لما أنا باي قرم القرآن باي فم الفوم باي قرم القرآن باي نافي سنان باي براما سلا باي براما زاملا باي فهو هذبلا باي وقر كفانلا باي مجل الفؤول باي مقتل وصول باي مبدي سهون باي ختم القرآن هانيلا باي أديت فرديلا باي ذكرت هانيلا باي لبيت دايلا باي كما دهانيلا باي رمز الوجود لباي سعد الصعود باي وفي الهود باي ربي وزانيلا باي أنت المربي باي لمن يلابيلا باي نداء شيقيلا باي بلا دوانيلا باي أنت المنادي لباي أنت المعبي لا لبيت جهرا لا نور الماني لا تم تم تم تم تم المقال لا بلا كمال لا سميت من آلان إلى الأمان لا سميت من آلان إلى الأمان لا سميت من آلان إلى الأمان لا سميت من آلان naylal amaani la yalaw anu